saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Double Less papay Balla gay 2 ca combat Balla gay Boy Niang 2 Balla Gaye Boy Niang 2 xaw ma ban promoteur moo koy dox waaye riir ma yeggagul ca waa kër Balla Gaye 2 Double Less may papa ja gisagul promoteur déggagul promoteur promoteur woowu ko message ko envoyé wu ko vocal yóbbantewul ci moom ci sunu lamb la xëy moom papay Balla Gaye 2 ne personne ne m'a contacté pour ce combat Balla Gaye Boy Niang 2 kenn ku ma contacté di ma wax waxi man sax am naa fu la joo xam ne promoteur bu ma contacté ku ma di ma wax diggante Balla Gaye ak Boy de xaalis bu bari lay laaj xaalis bu takkoo takkoo takku lay laaj ci bile ndax Balla Gaye 2 jar na ko Balla Gaye 2 mérite un gros cachet loolee moom képp ku bëgg taxawal bile combat booye boo defaale ko sa xel kafuma ci réewuma ci xaalis bu bari laa ciy laaj promoteur bi ma jot a gis moom diggante Sa Thiès ak Yékini la soxla diggante Sa Thiès ak Yékini ñu ngi ci ay négociation yu metti njortu naa ne bu yàlla defee li gën dootul yàgg te nekkoon koy téyel boppam démb la journal record xam ne nangu nañ licence ba ca Burxaan Wade Burxaan nekkatul manageru Boy Niang 2 li ni Boy Niang bi mu xëyee ci sunu lamb leeral na ko dëgg la am na problème bu dox diggante De Gaulle ak Burxaan Wade dëgg la sama licence ba nekkoon ca Burxaan Wade De Gaulle nangu na ko waaye loolee problème bu ndaw la dinañ ko régler bu leen fàtte ne Burxaan ak De ba ñuy ànd boobu man Boy Niang sax juddooguma Bougane Wade mooy sama manager coow nag daa mënta am waaye bu amee dañ koy régler jàll ci leneen bu ñu jàllee ca mesures ya CNG jël ci régulariser combat yi avant face à face yi gisee nañ ko nu wute kii di Abdoulaye Ndiaye moom la mu gis mooy li CNG def yoon la jaadu baax na man Abdoulaye Ndiaye li CNG def gisuma ci benn inconvénient bu dee Assane Ndiaye borom Bawol production la mu gis mooy jël yenn décisions yi day rey lamb exiger nit taxawal écurie-am ni ki suba la Pa Abdou Fall di xaar ngir régulariser bi les combats bi la sunu làmb xamle mooy njort nañ ne Balla Diouf ak Laye Ndiomboor ñoo doon coach ya bu ñu jàllee ca lit sans suba ca dimanche ca duudu ñaan jilas production moo wote ci Adrien Senghor teg fa 1 million le journal ba xamle foofu mooy troisième édition mbayang luum la bu dee ca Fimela le premier bi ba février foofu nag lañ fa teg ak 100 000 bu ñu jàllee mbër grand combat fils de Zalo tey la premier grand combat am caatu ngewel moom it tey la premier grand combat am bu dee diggante rëm ak Lastander Serigne Modou Niang moo woote suba ci stade Bargny jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah